لكم الصباح يلاحو بالمصباح سنيد يلاحو أعوذ الله بسم الله إن والي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماه تنسى قول وفعل ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب مدهني بشر حروفه ونوير به قلبي وسمي ومخلدي اللهم صل على سيدنا محمد بوكي جوليدي بوكي طالبي نونغي لين دي نويو بو باخ آه، دي تامبلي نويو بي نك فيكو نيما جيتو نييب تامبلي di kilifa jataay bi di Mohamed Wade di imaamu dëkk bi di imaamu tund wi di imaamu sous bu Kër ndax moom la yàlla dogal mu nekk ci sous bi nga xam ni moo yilifaale ba Kayaar ba Jandeer ba Fandène ndax siège bi Kër Moussa la ne te moo fi imaam kon su ma yeboo mooy imaam imaam yi noo koy ziyaara bu baax te di ko nuyu te di ko sargal di ko massawu coono ndax bi ñuy laataa ñëw moom fekk nañu ko mu toog fi ak imaam jaxati nga xam ni pas-pas bu fekkente ne am na moom moo ñu ko ëppale ci bis bi kon taxawaayam lépp lu ñu ci wax kenn ku ne yaa ko tegal sa bopp bët ñëw nañu fi lu yàgg te ñun booba jógeeguñu ca kër ga loolu day wane pas-pasam ak yéeneem ci bis bi kon ñoo koy sant bu baax li mu wax lépp ci nun ci moom la nekk <clears throat> ñaar ñu bokk jikko niroo aw doxin niroo aw defin ñooñu rekk a mën a ànd te noonu lañu yàlla boole li ñu dajale nii yàlla dajale ko ñu bokk ko chance la ndax kenn ku nekk ak liggéeyam ak la ko yàlla dajaleel imaam Mouhamadou Seck moo yoroon liggéey bi di ko doxal imaam Baye Youssou Diop di ko doxal ba mu agsi ci suñu loxo yàlla dogal ñu dajeek imaam yu baax yii yàlla dogal ñu sémb liggéey bu yaatu bii war koo liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bii waaye la nga xamante ni am nañu yéene waroon ko ci liggéey ba ñu demee ci sëñ Muntaxa ñu ñaan ko ko su ma yaboo ni moom la ñu dajal moo ñu ci dimbali ndax bañ toogee ci sëñ Muntaxa na murit yépp juboo na teejaan yeeg murit yi juboo na xaadir yi juboo na ñépp joxante loxo bu kenn wananteeg sa moroom gannaaw sëñ Muntaxa ni insha arab yi daal ñu ciy defal ñaan ba ñu ñëwee loolu dafa yomb waaye nag li mu yomb yomb ci am na loxo yu ko yàlla jaarale di Mohammed bu tedd bii di imam boo xamante ni imam ñépp ko ko nangu juddoo ci dëkk yaroo fi màgge fi doon fi imam yombul juddoo ci dëkk yaroo fi màgge fi doon fi imam yombul defar sa bopp dëgg moo ko mën a maye kon kenn ku ne xam na ni xale la waaye li ko teg àttan na ko ndax kenn ku ne am na ñoo xamante ni di ay mag yu fi ne a ah, ba muy gane jamono mën na leen fee fekk sax kon bu ñu xoolee trace am ba mu toll fii ñu ni ko yaay imaam bi jël lépp teg ci kawam kenn ku ne xam na ni zéro faute moo tax mu am cër bii nga xam ne yàlla defal na ko ci dëkk bi kon noo lay jox sa wàccuwaay te di la ñaanal yàlla boobaa baax di ñaanalaale sa jëwriñ ji di sa Cheikh Jaxate di sa rakk di sa loxo di di sa lépp fu ñu la gisee gis ko ci wetam di nuyu suñu bàyyi taala ndax nit moom boo koy wax ne bàyyi rek na la bàyyi taxawoo noonu lañu ñu taxawoo bët yañuy ñuy xool bàyyi la ñu koy xool bàyyu njaboot gi la bàyyu daayira yi lislaam bi la bàyyu ñépp la di bàyyi taala njaay bu ñu toogoon di wax ci moom mën nañu fee ne ba fajar jumaa jeeg mbaar meeg li ñuy tudd lépp ci dëkk bi ci loxoom la jaare ci lu baax ak ñim ko bokkal kon bàyyi taala ñoo lay jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu yi tamit ki nga xam ne mooy sëñ Modou Moustapha ndax fu mu toog joxuñu cër sëñ Ousmane yaay sama kilifa bu waxee ma ne ko sëñ Moustapha yaay sama kilifa dangaa baax rek keroog bi ñu dajee ci kër Baay Yuusu di joxe jëwrin ji dama ko ne ko sëñ Moustapha nekkal ci suñu kanam ma topp sa gannaaw di sa jëwrin mu ne sëñ Ousmane tegaat naa ko sa loxo yaa ma ko gën a xam gën ma ko man ëpp ma jot ma ne ko kon naa la ko téyal kon bu ma doonee jëwri ni nga yaay sama jëwri mu leer ñépp noonu ni sëñ Moustapha mooy sama jëwrin kon mooy jëwri ni jëwrin bii toog kon noo ngi koy jox wàcc waayam bu baax di ko jox rakkam yi sëñ libaas ak mbooleem njabootu Baye mu sekk yépp di sant njabootu Baye Youssou Diop yépp gis nañ leen ci jataay bi di sant bokki teejaan yi fi toog yépp di daa daaira sëñ Babacar Sy bi nga xamante ni dégg nga li imaam wax def nañu délégation ci njiitul Serigne Mor boobu ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay ak seen jibi Diop di ziyaar daayira xaadiriya seen liggéey rafet na kenn ku ne gis na ah ngont bi ngeen fi def kon yàlla gis na ko yàlla na yàlla nangu te boole ñu lépp li nga xamante ni am na ci bis bii nag waxoon naa ko daaw ma yeesol ko bokki taalibe yi ndax dañoo tënku ci tënk boo xamante ni Serigne Touba moo nu ko fi bàyyil ci guddi laylatul xadar bii dafa wax ni làkk zun niyatun saxakun rayas xakka jun jukkatun saakun mayas saa yu weer wi teroo rek mu joxoñ ñu bis bi laylatul xadar di doon ren ji saxakun la dajal saxakun ñaar fukki guddi ak juróom lañu sëriñ bi digal muy tey saa googu salaasa la firi xaa juróom la keef gi ñaar fukk muy ñaar fukki fan ak juróom mooy guddik tey bii sëriñ bi ne na ngeen ci def leelatul xadar bii kon bu ñu ko ci defee ci ndigalal sëriñ Touba la ko teg sëriñ Touba deflu na ko ci njaareem mag ña def ko mu xëy ni leen woowaat leen ma ñooñu fi fanaan ma santoon leen leelatul xadar bi ñu ñëw toog mu ni sëñ Malick Ndiaye yéeneel ba ñëpp teew ñëpp teew mu ni leen loolu ñuy làmbatukat yéen daj ngeen ko guddig bi sama borom xamal na ma ni ma yéen daj ngeen ko guddig bi jóg leen dem loolu tënk boobu ci lañu ñu tënk waaye bu ñu ko dajee nag guddig biig ñu daj ko fii tey mel na ne dajaale nañu ko jullit yëpp ndax kii ñu doylu di imaam raatib mu ngi toog ba toogee jullit yëpp toog nañu teejaar yi toog nañu xaajir yi toog nañu daj nañ ko dajaale ko ñëpp bu yàlla nangoo sunu ñaan gi ñu nag ñoom ñëpp ko bokk kenn ku ne boo ñibbee di nga ñibbiliwaale yoonu guddi gi laylatul xadar yàlla na yàlla nangul na ko kon noo ngi leen di sant bu baax tey gërëm ndax wax ji ah bëgguma woon muy gën gudd ndax donga yi dañ ma koy tere léegi man leen dënn bu yaatu ak xirte rek moo tax ñu koy guddale noonu ndax boo waxee xaw koo gàttal am na ñu koy gise neneen bu guddee it ñu ni ma gudd na waaye ñoo ngi sant donga yi di sant taalibe yi di sant ànd gi ñu ànd ak ni ñuy góor góorloo ci joxante loxo di sant jëwrin Muhammadu Fall ndax xit ma bi bi ñu ko sosee fukki daayira ak ñan dañ koo teg ci kanam muy sunu jëwrin noppal ma loolit mënuma koy ñàkk bañ a tudd te fu ma ko tuddee tudd naa taalibe yépp kon sëñ Moustapha jëwri noo ngi lay sant sëñ Mamadou Diop Fall noo ngi lay sant ñoo ngi sant bokki taalibe yi nga xamante ni lu ñu man ci taxawaay yii ñuy def ci dëkk bi yàlla ak ñoom a tax kenn ku ne gis nañ sa taxawaay te yàlla gis na ñëpp sëriñ Touba gis na ñëpp wax na ni su ma nekkee yéen maa ngi leen doon xoolee ñaari bët bi ma demee yow mal xiyaam murit bu ne maa ngi lay xoolee téeméeri bët laay xoolee àddina ak àllaaxira kon loolu fu waaye toog liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba gis na la bu yowmal xiyaamee soo ubbee sa ndab fekk ko ci kon noo ngi leen di sant di leen soññ ngeen gën a góorgóorlu ci liggéeyal Serigne góor góorgóor leen ci liggéeyal Serigne Touba kenn ku nekk ak sa ndab kenn ku ne loo def ci Serigne Touba teg na ko bët benn nit bu toog wéttalikoo ma ñaareel naa ko bu dee ñaari nit ñetteel naa ko bu dee ñeenti nit ñeenteel naa ko ba fu lim ba yam kon Serigne Touba moo ñu gën a jige te kon ay taalibe lañu kon soññ naa leen ci liggéeyal sëriñ bi sonni leen ci ci ñu bennoo keroog bi ñu jëkkee julli ji ci kër sëñ Touba nee naa leen juboo gi ma leen di wax sëriñ Touba ko digle murit bu ci xàjj ko mbaa keneen ku xàjje ko di wuti leneen kenn aw fee kenn aw fee sëriñ bi dañuy bokk bàyyi ñun ñëpp suñu defee benn dank mu wàcc ñu ci mu wàcc ci suñu biir loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax ñu def benn dànk ànd liggéeyal Serigne Touba te yàlla na yàlla nangul nu nangul mboolem taalibe yëpp imam ci yow laa tàmbalee ci yow laa tëjawaat ñoo ngi sant jëwrin sëñ Moustapha bu baax sanc sant sëñ Mouhamed Wade bu baax sant bàyyi Talla Ndiaye bu baax sant dong yi sëñ Saliou Sarr sëñ Xabbaan loolu ci sëñ Moustapha wax mënee su koo ñàkk laal mbubb ma ma la gise woon daaw ak mu ren mi boo xëyee sol ko ba fajar doo ko summi ngir bëgg bés bi jàkk rekk kon noo ngi sant sëñ xabbaan di sant daayira bi aju ci yow di góor ak jigéen mënuñoo wax nag te daaneeluñu ci soxna yi ndax maa ngi gis sëñ ma Seck bu cene ba ndax ñun ñi cene ba la ñu yaroo daana wax ni bu Samba Sadio dekki woon tey fétal yu gudd yi jigéen ñi laa koy jox ngir seen pas-pas ak seen taxawaay kon loolu gis nañ leen bu baax ci lislaam bi ni ngeen ko taxawoo bu dee wootee la yéen a fay jëkk yéen a fay mujj bu dee lu ñuy xéewloo la yéen a koy toppatoo bu dee lu ñuy joxe it daanaka yéen a cay man kon soxna na koy njaay ak ñi ànd ci yow yëpp dégg naa li sëñ Moustapha seere ci yow te yàgg na lool ci sa organisation ci sa taxawaay ci bis bi yàlla na yàlla fayal nu la li ñu ciy teg nag moo di ah ginnaaw murit moom ndigal rek la am ndigal li ñu leen waxoon daaw ñu soññaat ko ren ci ngeen jël addiya andil nu ko ñu jox ko suñu imam bi addiyey sëriñ Touba bu ko defee mu Amadou Diop Fall sëñ Laay Fall murit Sadex ah ngeen taxaw sëñ Maajey ngeen teeylu ko ndànk nag dajale addiyey sëriñ Touba sëriñ Touba dafa wax ne maa irrazayil muhtil fadayil muhtil manasin bahdal afayil képp ku ma jox àddiya ba sa poos jeex maa la ko yeesalaatal te bëgguma kenn delloo weccet fa nga jóge woon waaw na ngeen dajale àddiya yépp ñoo jox ko àddiya sëriñ Touba sëriñ Touba bokk nu nangul muy sunu caabi àjjana ba déwén ndax ki ñu koy jox mate na ko am na ko te mate na ko taxawe na ko kon yàlla na yàlla sàmmal nu ko bàyyil nu ma ko insha rabbi na ngeen jël benn benn ngeen teylu ko def benn benn laaj àddiye ji ba noppi ñu soog a continuer ربناكم الصواب يالله بالمصطفى سنيد يالله وبخليلك إبراهيم يالله وبكليمك موسى صالح خضر وبي صاحب وإسماعيل يا الله